voilà Pa maget maa ngi lay fay di la nuyu bu baax a baax di nuyu suñu mbokk auditeurs ak téléspectateurs Leeral FM ak Leeral TV donc fi ñu nekk ni comme ni nga ko waxee moom mooy ci département bu Tëngéej euh, précisément nag maa ngi ci arrondissement bu Sangalkam ci lieu de vote école élémentaire Niaga nga xamante ne bi bokk na ci euh, lieu de vote yi gëna a ràññeeku ci euh, diwaan bi lay bokk ci commune bu Tivaouane Peulh Niaga donc tey ci arrondissement bi nga xamante ne bi moom la ñu nekk muy Sangalkam am nañu fi lu tolloog 31 lieu de vote yoo xamante ne bi askan wi ñu nga fa jamono ci wante ci xayma rek am nañu 140 Euh, bureau de vote yoo xamante ne itam askan wi ñu ngi fa bu baax a baax ci itam wàlluk inscrits yi gis nga gis nañu ne lu toll ci mille vingt 625 ci euh, lim noonee la toll muy chiffre yoo xamante ne ñu ngi ko nangoo ci sous préfet bu arrondissement bu Sangalkam moom sous préfet euh, Mamadou Diouf gis nañu itam ne li nga xamante ne bii moo soxal affluence bi ci askan wi nga xamante ne bii rek ñoo ñëw ngir mën a voté daanaka bëri na lool bu ngeen ko xoolee ci image yi di ngeen xam ni askan wi ñëw nañu nag ngir mën a voté tànn ki leen war a jiite euh, ci bopp nguurug Sénégal fii lekk juróomi at encore jot nañu nag dem euh, ci yenn lieu de vote yi ngir xool déroulement vote bi nu mu tëddee jot nañu sax taataan ñenn ci kaddu ñi nga xamante ne ay autorité la ñu ko ci mel ni le ministre Omar Gueye ancien ministre des collectivités territoriales ancien porte-parole du gouvernement ancien maire bu Sangalkam wante itam le nouveau maire de Sangalkam Alpha Bokar ñu ànd teewlu leen soog a ñëwaat léegi léegi. comme ni ma ko constaté ak yéen mooy lépp aw na yoon euh, nit ñaa ngi ñëw di voter ci kalm amul benn problème ndax suñu réew nag di Sénégal c'est une démocratie vraiment achevée depuis très longtemps ñi ngi voter euh, te actuellement nii fi ci suñu réew ci njiitalu président Macky Sall euh, organisation bi mi ngi aw ni mu war a awee loolu nag bettuñu ndax expérience bi ñu am ci Sénégal Euh, di voter euh, démocratie bi taxaw na bu baax a baax. sant yàlla bu baax mu ñu may kattan ba ñu teew fii tey pour mën a def suñu droit de vote loo xamante ne constitution moo ñu ko conféré ñu def ko si jàmm mais gis nañu aussi vraiment que vote bi mu ngi déroulé normalement amul benn jafe-jafe te loolu vraiment c'est un boo xamante ni ñu ngi koon xaar kon sant yàlla ci loolu mi nga xam moo ñu may kattan ba ñu mën ñu dajale ñun ñëpp kenn ku si nekk indi sa. participation ba nga xamante lépp jaar na yoon ci côté état ci côté vraiment candidat yi fi nekk kon sant yàlla di wax ne ñu ngi ci weeru koor di ñaan yàlla koor gi yàlla defal ñu ko mu ngi noonu muy réaction ñi nga xamante bi rek ay kilifa lañu nekk ci commune bu euh, Sangalkam kon nag mu ngi noonu amagul benn incident majeur boo xamante bi mën nañ koo signaler donte bu fekkente ne am nañu quelques jafe-jafe ci centre école élémentaire bu Tivaouane Peulh 1 ndaxte bi ñu fa ngir mën a euh, jël fa ay images euh, gendarmerie surtout commandant bi fa nekk jamono ji daf ñu ne ñun kat mënuñoo dugg en tant que journaliste national wante dañ ne rek il faut que ñu am euh, autorisation bu DGE bu ko defee rek ño mën a dugg ngir mën a am information par rapport ak déroulement vote bi fii ci arrondissement bu Sangalkam